yëgsi nañu ci li ci yéenekaay yi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal eh, ci baatu askan wi dal leen ak jàmm ci xibaaru yéenekaay yi Walf Quotidien lañ koy doore mu ngi ñuy dégtal jafe-jafe yi nga xamante ne moom fajkat yi di dund toll nañ ci téeméeri eh, médecin ak benn yoo xamante ne ñaawlu nañu li xew ci bërëbu eh, fajukaay maanaam ci hôpital yi ñu bëgg a soppi kaso ndax ñu bari ci ay détenu politique soobu ci xiifalu ñaxtu ci ñoom la ñu akisi ba tax na loolee nag jural leen jafe ci wàllu paj mi ñu ngi sàkku ngur gi mu jël ci euh, matuwaay kontaan nu ñu benn yoon ci doxalin gi mu ngi ci yéen a bi di Walf euh, Quotidien yéen a bi di yor-yor gi di ñu dégtal Ousmane Sonko gannaaw euh, fanweeri fan ñeent ci xiifalu ñaxtu mu du mooy lekk ak naan boobu léegi mu génn nag dakkal xiifalu ñaxtoom googule ni ki démb yenn a bi moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk moom njiital Pastef won na ginnaaw xiifalu ñaxtoom yéen a bi di l'info ne mu ngi ñuy dégtal afia goo xamante ne am na ko bàyyi màggal gi eh, jur na mbégte ci ñi nga xamante ne ñoom la caabi féete woon ginnaaw eh, ñu bari ci ñoom jot nañoo am afiya yéen caabi ne ku demee ni Cheikh Bara Ndiaye na këram eh, ku demee ni Serigne Assane Mbacké ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp jot nañu amal bàyyib négandiku démb yéen caabi ne sax du ñoom dong am na ñoo xamante ne ñu bari ñu ñu jàppoon ci kaso yi ci diggante weeru février ak mars 2023 ñoom ñëpp jot nañ leen a bàyyi ñu ñibbiwaat seen kër yéen caabi ne jéego bi SOSP def société civile xamle woon ne ñu ngi dox tànk jàmm ba ñu bari ci ay prisonniers politiques ñu mun leen may afia loole mu ngi tàmbale am effet mu ngi ci yéen kabi di l'info yéen kabi di Sud Quotidien mu ngi ñu dégtal téeméer ak ñaar fukki ak juróom-ñeenteelu édition Magalu Touba Mbacké lu aju ci wàllub jéego yi nga xamante ne Touba amal na ko ci jamono ji Touba doon célèbre yoonu askan wi bokk na ci tamit lu aju ci ila Touba ku ku ne ci askan wi bëgg a dem ca Touba Mbacké yéen kabi nu moo xam nga euh, jël sa saret ngir dem ca Touba moo xam nga jël woto moo xam nga jël train bi ak foo mun a ne euh, yéene bi mooy euh, jóge ca bërëb ga nga ne bàyyeekoo foofee dem ca Touba Mbacké yéene cabinet ci jamono ji ñu bari sax ci taalibe yi jël nañu train bi ngir dem ca Touba matuwaay yi nga xamante ne jël nañ ko ci màggalu ren ji yéene cabinet Sud Quotidien dikkaat na ci yéene cabinet L'As xëy ñu dégtal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké béy na waar wu yaatu ci yoonu Murit rawatina ca Touba Mbacké yéene cabinet ne moo xam euh, tabaxum université Cheikhul Ahmadul Khadim euh, ca Touba ak yeneen i euh, jumtukaay yoo xamante ne daanaka samp na ca Touba ba ci bëccëgu xasida goo xamante ne jëmmal na ko ca Touba mu ngi ci yéene kaabi di las sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke sàkku ci taalibe yi ñu jëfee ndigal yi te moytandiku tere yi mu ngi ci yéene kaabi di las yéene kaabi di sursaane ma ngay dalal xelu xalif général des Mourides moom général Moussa Fall ma nga woon ca Touba Mbàkke waxtaan xalif bi ne eh, jël nañu matuwaay yi war ci wàllu karange eh, ñeel Touba Mbacké wattu karange askan wi ak seen moomeel loolee dañ ci bay seen waar bu ñu sukkandikoo ci général eh, Moussa Fall yéen kaabi di Le Soleil ne ila Touba gaar gi dambalewaat na train bi daanaka deqi na wutali li nga xamante ne mooy Touba ñu bari ci askan wi nag wane nañ seen bégte ci ni train bi dooraat wutali dëkk bu sell ba di Touba Mbacké lim bu takku ci ay doom aadama jot na leen fa yóbbu ñoom xam le nañ ne daal euh, train train googule euh, di raay bi yegsi na ca waxtoom ndax ñu ngi doon am jafe-jafe ci wàllu am ak euh, dem ak dikk ngir mun a yegg ca Touba waaye nag bile yoon yomb na lool ci ñoom yéen a bi di le quotidien ku yabo sentu kay doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar samedi gi yéen kabi bi ne njiitu réew Macky Sall mun na cee gindi askan wi bu ca noppee tamit dina amal remaniement ministériel lu yees mun na ca am yéen a bi moo ko yeggee yéen a bi di enquête xëy ñu dégtal li am. ci diggante pouvoir ak euh, société civile euh, bokk na ci li faral di dox seen diggante ak la muy jur ci njeexital ci wàllu politique mu ngi ci enquête yenn kabiri suñu lamb xëy du ñu dégtal Balla Gaye euh, mi nga xamante ne diggante mag Modou Lo waaye nag boo ñaar 2 mi déggaloo muñal Balla Gaye 2 boo ñaar googule kàngam la ci bëre ndax waajuram di déggool yéenekaay bi moo ñu ko yeggee ci xatam bu njëkk waaye nag Walf Quotidien mu ngi ñuy dégtal wàllu football Sénégal ma ngay waajal match am ak Algérie Aliou Cissé jot na jukki euh, gaynde ci football Algérie googu de euh, lu ñu war a mun a gagné la Aliou Cissé moo ni waxee rafetlu yi tamit euh, Arabie Saoudite nga xamante ne daanaka kenn mënutoo mënatu koo lam-lame ci wàllu football ci àddina gi te doomu Sénégal yaa ngi fay football ñooñee xelam dal na ci ñoom Elimane Ndiaye sax ne xelam dal na ci moom ak ba ci Edouard Mendy ak. ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp am nañu seen place ci équipe nationale euh, ngir baat seen waar ci euh, bile équipe euh, gagné Algérie doon na yéene Aliou Cissé ci googule match mbokk yi daañu ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo ci yeneen i xibaar ci leeru jamono.